Euh, chers internautes ñu ngi leen di nuyu di leen dalal tey ci Senego TV donc tey ñu ngi dalal euh, monsieur Assane Ba mu di chargé de la propagande et de la mobilisation en même temps aussi nekk euh, membre du comité directeur du parti démocratique sénégalais monsieur Ba ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay suma xarit waa Senego di leen nuyu bu baax di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm di ziyaara également tous les internautes yu nekk ci biir réew mi ak bitim réew. donc monsieur Ba en tant que euh, qu'observateur parce que euh, jot nga gis li jot xew démb à Joal donc euh, gendarmerie ñëw tas aussi nemmeeku tour bi Ousmane Sonko doon amal au niveau de Joal donc yow en tant qu'observateur nag nga jàngate situation boobu. jàpp naa ni ñaawteef gënu rëy loolu ñaawteef gënu ko rëy lii tubaab naan provocation mu am foofu ndax suñu chartu réew. ñu koy tuddee la constitution mooy ndeyu sart mooy ndeyu loi ci Sénégal dafa joxe droit que citoyen sénégalais bu nekk nga am sañ sañ wax sa xalaat nga am sañ-sañu déplacé wu nga am sañ-sañu seet say ñooñ guddi ak bëccëg wala waxtu soo tant que yënguloo li nga xamante ni yoon def ko tere am nga sañ-sañ boobu kooku vraiment droit constitutionnel la euh, un responsable politique connu ñëpp xam ko un parti officiellement reconnu dem di def tournéem di nemmeeku di seet ay mbokkam ay nawleem ay xaritoom di saafonte ak les citoyens sénégalais loolu jarul woon sànni ay lacrymogène jarul woon yónni ay ay gendarme ki ay alakaari ñu koy kar ak dëkk bu ndoxataal vraiment fi ñu toll ci démocratie suñu réew waroon na dépassé loolu waaye malheureusement di ñu gis ni Macky Sall ci boppam euh, il il a perdu la pédale maanaam daal dafa réer fi mu nekk ni xamatul ci lu mu def dafa jànnaxe en quelque sorte ndax lii nga xamante ni def na ko démb te classe politique bi yëpp ak société civile ak même euh, le monde extérieur ñu ñaawlu ko wax dëgg yàlla sans le savoir il est en la promotion dégg nga koom et même de la propagande pour ce parti politique là. démb sax si ay waxam mu ngi koy mu ngi koy wax gendarme mu naan ko yéen a ngi def sama tournée. absolument il il il n'a parce que euh, ciwte gi. maanaam lii nga xamante ni def na ko démb nemmeeku bi bu amee tey benn audience au niveau sénégalais et au niveau international mais c'est grâce surtout au fait ko gouvernement bi jël ay gendarme di ko jéem a xoqatal di ko jéem a tuutil di ko jéem a ragalloo di jéem a ay militam ak ay ay ay soppeem loolu tax mbir mi siiw presse bi jël ko presse locale bi ak presse étrangère bi jël ko tawi ba mu egg sax foo xamante ni eggu fa kon sans le savoir il est en de faire la promotion et de la propagande pour ce parti là mais aussi du ñi ko jege aussi ñoom ñooy bëgg bien faire pour plaire au président donc ñoom ñooy jël seen initiative bopp parce que démb ñu ngi dégg gendarme bi joxe ay motifs yi nga xam ne préfet moom moo joxe ndigal que ni ñu tas euh, peut-être day euh, genre attroupement pour a tort le préfet Macky Sall bëri dem rek la dem géejuwaay ak ay nit. Mm-hmm. ci corniche bi ci corniche bi. bu mm-hmm. wax fa lu fa nekk tey lépp ay montage la. Mm-hmm. chaque jour ñu gis ko mu def ay tournée yu ko neex mu dem ci marché yi wala mu dem Sandaga wala mu dem feneen ak ñenn di ko def ay ñooñam ay partenaire am ñi bokk APR ak benn bokk yaakaar def ay convoi di dem di ñëw musul am problème. et puis il n'appartient pas au préfet de qualifier un convoi de ce qui est un convoi et de ce qui n'est pas du du préfet xam naa ne rek am pantin la maanaam xuusuma ñàpp la bu ñu teg fële rek ñu koy jox ay ndigal te ndigali Antoine Diome moo ko jox parce que moom mooy ki kilifaam hiérarchiquement parlant mais loolu dafa ñaaw ci administrateur civil il faut que dans ce pays ñu jàng yemalee doomu aadama yi ñu jàng yemalee ni lu loon yoon ci boppam dafa gàlloo ci loosu kenn ku ne te ñëpp war a yem ci loos alors ci ci ci yoon donc loolu mooy li nga xamante ni wax dëgg yàlla man moom laa si ñaawlu alors ñaawlu naa lool lool lool disposition boobu nga xamante ni préfet jox na ko capitaine de gendarmerie boobu mm-hmm. parce que suivre naa élément bi à la presse dam mm-hmm. ko ñaawlu mm-hmm. alors véritablement je pense que loolu ñaaw na trop et gouvernement bi jàpp naa ne war nañu xoolaat seen bopp. ndax loolu ñaawteef la. tout à fait yaa ngi koy wax ci say kàddu donc euh, le président Macky Sall def na benn genre retour au niveau de la corniche si loolu aussi gis nañ ci un certain Aliou très proche du maire de Wakhinane Nimzatt aussi di def promotion troisième mandat et récemment aussi gis nañu ñuy exhorter à la vente de 1500 cartes donc est-ce que nekkul selon vous di ouvrir la voie au troisième mandat. xam naa ne Macky Sall moom askan wi bàyyi na ko wax dëgg yàlla askan wi suur na suur na leen askan wi moom doy doy doyal nañu sëkk ci Macky Sall moom ku mu teg loxo askan wi suur la ku ku dem fekki Macky Sall également askan wi suur la loolu moom c'est une conséquence réelle man ci loolu laa gis loolu laa jàpp dem naan dee jaaye carte yëpp kooku ñun parti démocratique sénégalais lay topp topp parce ñun loolu mooy suñu programme commencé nañ ko ñu suspendroon ko ngir mbirum élection locale yi ak élection législative yi reprendre nañ ko nous sommes sur l'ensemble du territoire national et même de la diaspora xam naa ne dafa gis ni nag ñii bu ma deful ni ñoom gars dañ may jaar fàtte ma suul ma définitivement mais li leer mooy Macky moom moom ak ñooñam ak jàngoro gàngoroom na xam ni fàtte nañ leen parce que askan wi dafa leen sànni fële ci élection locale yi askan wi également sànni leen ci élection législative ba fi mu nekk ni amul majorité à l'Assemblée nationale. mais en 2019 gars loolu lañ doon wax après mu ñëw c'est différent ah. c'est différent parce que il avait procédé à l'élimination des candidats potentiels daf éliminer woon le candidat du Parti démocratique sénégalais en la personne de Karim Meïssa mm-hmm. éliminer également d'autres candidats ku mel ni Khalifa Sall ak ñeneen. Mm-hmm. alors bii le jeu va être ouvert qu'il le veuille ou non mu bëgg ak mu bañ ko incha allahu su ñu ay kandidat du ñu bokk te moom xam na ni uh-huh. ndegam bokk ñu si élection législative rek ñu yóbbu ko plat à plat ventre astamak nag bu ñooñu bokkee donc du gis biti le jeu va être ouvert comme candidat comme yenn candidat par exemple yu sérieux yi nga xam ne war nañu mën a jàkkaarloo que le parti démocratique sénégalais aura son en la personne de Karim Wade et le seul personnage de Karim Wade suffit uh-huh. pour véritablement définitivement bale le régime de Macky Sall à jamais loolu déjà ñoom xam nañ xamoon nañ ko en deux mille dix neuf parce que seen bulletin de renseignement yooyu nga xam ni gars mi defoon nañ ko. looloo taxoon surtout mu écarté ko. tey jii euh, dañuy réclamer Karim Karim Wade aujourd'hui et devenu une demande sociale partout foo dem Sénégal même au niveau des des chefs foo ci dem ñu ngi koy ñaanal di ñaan yàlla mu dellu ci réew mi jege waajuram jege parteem loolu tey askan wi ci boppam moo def réclamation boobu. te askan wi nag lu mu réclamer rek dañ ko am ndax nag euh, le peuple est au-dessus de l'État le peuple est au-dessus du gouvernement le peuple est au-dessus de Macky Sall kon bëgg-bëgg askan wi kenn mën koo kenn mën koo salfaañe loolu moo tax ma jàpp ni même bu fekkente ne yow da xalaat ni loolu tànk wutum troisième candidature la mhm. ay caaxaan la parce que Macky Sall ci li ma gëm man mënatul nekk candidat mënatul nekk candidat parce que simplement moom moralement def ko wax vidéo yaa ngi fi moom mu ni man ñaari mandat lay def def naa benn mandat sept defal naa benn mandat cinq ans bu jeexee jeexal na moom sax dem na bu tuddee ko julli tabaski mu ni julli tabaski juróom-ñaari rakk la ra euh, euh, kii bu jëkk bi euh, kii bu ñaareel bi juróomi juróom juróomi rakk la bu jeexee nga sëlmal nee na bu bañee sëlmal nañ ko wax ni subhanallah nee na foofu la yem. mais est-ce que aussi ay naataangoom influencé wuñ ko comme Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire tey ji mu defee troisième mandat gis nañ aussi euh, en Guinée Alpha Condé defoon na ko fii mais après bien que chuté na est-ce que loolu aussi gënu ko peut-être. Euh, kon dina garaaw kon dina garaaw pour naataangoom yooyu influencé ko parce que Macky dafa war a mone dafa war a wane le bon exemple d'abord la démocratie au Sénégal le président la da ko xeex pendant vingt six ans ba tey ñu egsi fii tey ba en pour la première fois ñu am alternance politique en 2000 ñu dem dem ba en 2012 ñu am la deuxième alternance politique Macky Sall président de la République et aujourd'hui Macky Sall mooy président de l'Union africaine kon dafa war a wane le bon exemple warta euh, toppandoo des chiffonniers wala ñoo xamante ni ay coup d'état politique wala des coups d'état euh, fait par les armées ñoom ñooy leen fal def leen ci bopp réew mi non je pense ça ce n'est vraiment pas euh, un bon calcul ce n'est pas loo xamante ni lu mu war a lu mu war a topp ndoo la moom ci boppam royukaay la war a doon ci kaw mu topp charte réew mi topp loi réew mi topp la nga xamante ni moom la ñu moom la ñu euh, charte fondamentale réew mi wax te itam ma pour ma egg yokk ci loolu mhm. ci affaire u troisième candidature mhm. comme ni nga ko waxee mhm. xam nga moom moo def euh, quinze points de réforme constitutionnelle le 20 mars 2016 ñu réduire la durée du mandat jële ko sept ans indi ko cinq ans mhm. mais le le le problème des deux mandats fii la ko fekk mhm. dans la constitution de janvier deux mille deux mille un kooku constitution bi fii la ko fekk deux mandats yi ci la nekkoon mhm. léegi moom li mu wàññi rek mooy la durée du mandat jële ko sept indi ko cinq léegi nag deux mandats consécutifs yooyu dafa leer nañ wax ñu deux mandats consécutifs de cinq ans ou de dix ans ou de sept ans deux mandats consécutifs la ñu wax. def na premier mandat deux mille douze ba deux mille vingt neuf. deux mille douze ba deux mille. deux mille dix neuf. ba deux mille dix neuf. Mhm. ça fait ça fait ça fait ans. Mhm. donc deux mille dix neuf à deux mille vingt quatre ça fait cinq ans. donc mooy doon deuxième mandat parce que dañoo tegaloo. Mhm. deux mandats consécutifs maanaam yu tegalantoo. wax mandat bu doon dix ans sax benn mandat nekk trois ans sax ñaari mandat yu teg loola. donc vraiment on n'a pas besoin de faire juridisme ici. évidemment on comprend li tax mu naan ñooñam ñi naan conseil constitutionnel et parce que egguñu foofu. waaye bu ñu eggee foofu. ñoom ñu xam ne ay la yëwan. absolument le peuple du nangu am na yoo xam ne du ko nangooti. c'est terminé. loolu rek laa ci yem mais euh, daal bu euh, gëmee yàlla. Euh, bu gëmee yàlla nu organiser des élections libres et démocratiques. sincères et te ñi nga xamante ni daf leen xañoon seen ak ak seen yelleef ci loo xamante dugg du yoon dégg nga mu bàyyi leen ñu bokk ci élection yi comme ni mu leen génne woon moom ma xam ni mu leen génne woon mu fexe ba rétablir leen dans leurs droits civiques et politiques. ñu mën a bokk absolument donc candidature Karim Wade donc par rapport ak euh, moom selon vous moom moo gën a euh, mën a jàkkaarloog le président euh, bon le président Macky Sall. ah oui parce que le parti démocratique sénégalais bi nga xamante ni ñoom ñoo def Karim candidat. Euh, moo am appareil politique boo xamante ni amul benn parti fii au Sénégal boo ko gën a baax appareil politique notre appareil politique est performant macha allah boo demee euh, dans les huit départements de la diaspora c' pas pour rien que ñu gañe fa c' est pas pour rien ñu am fa ay militants nga dem au niveau Sénégal au niveau national amul benn village benn village laa wax de wax ma commune wax ma département benn village booy dem Sénégal te amul des militants du Parti démocratique sénégalais donc notre appareil est performant notre appareil valide notre appareil moom mooy yaakaar askan wi tey donc tey le PDS moo constitué euh, vraiment la route de secours et de refuge des citoyens sénégalais pour que ñu mën am euh, développement réew mi pour askan wi mën a noyyi askan wi mën a am jàmm mm-hmm. xale yi mën a am xëy jàmm ji sax ak sécurité bi mën a dal donc loolu mooy li nga xamante moom la askan wi yaakaar ci PDS donc déjà présent mën nañu exclure candidature unique euh, intercoalition Yewwi Wallu en 2024 non man je ne je ne prônerai pas une candidature unique c'est un piège. comment nañu waaw xam nga lu tax boo nee candidature unique am na ñoo xamante ni bu ñu àndul la ak man. Uh-huh. wala bëgg ñoom woteel duñ ma woteel. Uh-huh. mais yow boo nekkee candidat ma nekk candidat. Uh-huh. kële nekk candidat ñeneen nekk candidat. c'est c'est des candidatures ouvertes. donc bu defee l'avantage là c'est au premier tour kenn du mën am la mesure requise pour nga jàll. donc le jeu va se faire au niveau du second tour. en on va se rapprocher. Et le candidat le mieux placé, arrivé premier ou arrivé deuxième pour le compte de l'opposition, Bouboba, nous en avec un programme solidaire mhm. ñu mën ko fal mu nekk un le président de la république mais ci kaw loolu fekk ñu amnistie Karim ak euh, Khalifa bu boobaa mais su nekkee si c'est pas le cas par exemple tey jii Sonko kese doon euh, mën a présenter. il est évident que on l'avait expérimenté en en 2000 en comme ça on avait d'abord euh, la la la CA 2000. la coalition alternative 2000 et ensuite après le le premier tour deuxième tour bi ñu créer le FAL. les forces de l'alternance c'est exactement copie conforme qu'on va faire inchallah amul benn problème rien rien rien de nouveau sous le soleil alors donc nous voulons des candidatures ouvertes mhm. vraiment ku bëkk bokk rek na nga bokk mhm. ñun démocratie la ñu xeexal mhm. te wóolu nañu seen bopp suñu bopp ci lool tout sauf Macky quoi waaw mais Macky sax euh, mënul bokk malheureusement mais man bu mënoon bokk bu ko yoon terewuloon mu bokk sax man mu bokk du doon problème ci man parce que il va être battu à plate couture mais comme mënta bokk malheureusement yoon moo ko teree bokk mhm. ak lu mu mën a def ci réew mi yoon tere na ko bokk te du bokk mhm. kon nag moom na góorgóorlu euh, créer les conditions euh, d'une bonne élection présidentielle mhm. ouverte fexe ba ñi war a bokk ñu bokk ci jàmm ak salaam et véritablement réew mi dox réew mi am jàmm bu ko defee kii falu félicité ko euh, moom mu jox raay ak yooyu mu dem nag defi leneen. ok donc euh, seetlu nañu aussi donc toujours par rapport ak candidature Karim Wade euh, ñu ngi soulever question amnistie mais Karim moom si boppam génn na bëggul amnistie te gis nañu aussi certains membres du PDS ñoom it ils ont rejeté l' amnistie ils veulent la la réouverture du procès donc tey ñëpp xam nañu euh, su ñu reprendre procès bi ça peut des années mën a jàll sa ba dépasser 2024 donc est ce que loolu aussi du gàllankoor candidature Karim Wade. dafay fa baax ñu fàttali amnistie li ci gën a bari euh, crime économique moo ko indi walla euh, des personnes euh, yoo xamante ni dañu dee sous le sceau d'un crime ay nit ñu ñu faat walla ay nit ñoo xamante ni dañ def njombe ci seen liggéeyukaay bu ñu épingle leen mm-hmm. corps de inspection générale d'État wala nag wala Cour de comptes wala inspection générale finance jàpp leen ci loo xamante ni lu ni fàng lu ni jaaran la ñu xam ne ñii dañ doon luubal alalu askan wi ñu leen tëj leen loolu ñaare mooy indi li ñu tuddee loi d'amnistie pour ñu jégal ñooñu de telle période à telle autre période on n'amnistie pas des personnes mais des faits mais pour le cas de Karim lu tax ñu bëgg naan dañu amnistier Karim mais Karim mosul am problème de gestion amul benn corps du contrôle au Sénégal fii boo xamante ni wane na rapport ni Karim luubal na lenn ci liggéeyam du dara du i du inspection générale d'État du nag du Cour des comptes de l'inspection générale de finance donc il n'est il est hors champ dans la loi supposée être la loi d'amnistie mais kon reconnaître au créé en quelque sorte suñu suñu. Karim Wade dañ ko toppee woon euh, enrichissement illicite. Mhm. délit boo xam te mu ngi sax dans le code pénal on n'a même pas besoin de créer une cour de répression de l'enrichissement illicite pour pour pour poursuivre des gens qui sont dans cet état là. Mmh. mais Karim Wade dañu jël alalu Bibo Bourgi moom lekk ko. Mhm. ay alalu Bibo Bourgi moom lekk ko. ay société Bibo Bourgi moom lekk ko. ay immeuble Bibo Bourgi moom lekk ko parce que simplement. il y a le délit ay xarit lañu alors tribunal gëstu gis ni ay liyen lii ñuy moom le Karim Wade moomu ko Bibo Bourgi moo ko moom la preuve tey jii le tribunal arbitral Paris condamné na l'État du Sénégal à payer à Bibo Bourgi mille cinq cent milliards parce que état bi def jël alalam naan koy jaay xool mu loolu ensuite Karim fu mu dem ci juridiction internationale yi fépp foo xamante ne wax nañ fa dëgg ci droit muy cour de la CEDEAO il a il l'état du Sénégal nga dem euh, au tribunal de grande instance de Paris il a gagné le gouvernement du Sénégal nga dem au groupe de travail des Nations Unies ñu ne ko son son son procès a été irrégulier le euh, le comité des droits de des Nations Unies dem na ba wax état du Sénégal ci seen examen périodique mun leen yéen état du Sénégal da ngeen war indemniser Karim Wade non seulement da ko war indemniser ndax yéen ko tooñ mais également da ngeen war a def la reprise de son procès ma jox jox na jox leen délai six mois loolu mooy li nga xamante ni moom le parti démocratique sénégalais di demander moom lay Karim Wade di demander donc nous on n'a pas besoin encore une fois d'amnistie pour mu leer parce que defuñu lu tax ñu ñu ñu ñu yóbbu amnistie wala ñu ñu defal loi d'amnistie Macky Sall nag il a un problème avec la justice internationale parce que lépp loo xamante ni ces juridictions internationales wax nañ ko moom def ci toog moo tax il est devenu aujourd'hui ce qu'on a il a dafa jël suñu Sénégal yóbbu ko dans le peloton bi ñu tuddee le peloton des états voyous un état voyou mooy réew moo xamante ni décision de justice internationale yi du ko appliqué moo tax Macky a un problème de conscience avec la justice internationale alors que nous avons euh, signé des accords et des traités internationaux yoo xamante ni si dafa bokk te ci suñu corpus juridictionnel ndax mu ngi ci biir constitution bi article 98 mandat ko mu nekk des instances des instances judiciaires supranationales maanaam ñooñu lu ñu dogal rek état du Sénégal daf ci war a tënk daf war a exécuter mais waa ji tey dafa bañ moo tax su notre état est considéré le Sénégal est considéré comme un état voyou parce que simplement les décisions internationales hein, euh, qui sont supranationales aux lois internes aux décisions internes n'ont pas été respectées euh, par par le gouvernement. la euh, révision du procès. nous sommes pour la révision du procès nous la révision du procès quel qu'en puisse être demain ce qu'il en sera Parce que la dignité de Karim Wade ne se marchande pas. Même si je suis dépassé 2024. Sa dignité et son honneur ne se marchandent pas. Mm -hmm. Et nous ne voudrions pas amener ici des problèmes pour demain. Mhm. Donc, la dignité et l'honneur de, de, de Karim Wade, duñ ko spolier, duñ ko caaxaane, parce que après tout, euh, c'est une forte personnalité, un cadre politique, un, un candidat du Parti démocratique sénégalais, mhm. ñu nangul Macky Sall loo xamante ni bu doon kenn duñ ko ko nangul. donc pour terminer un peu euh, ñu ngi si jeexantal émission bi donc euh, le cas de Mimi Touré à l'Assemblée nationale donc ak génn bi mu génn euh, coalition benn Bokk Yaakaar donc mën est-ce que mën nañ yaakaar ni au niveau de l'Assemblée donc coalition intercoalition Yewwi Askan Wi mën ko jàppale si yenn prise de position au de l'Assemblée nationale vraiment man wax dëgg yàlla soxna soosu yaa yaayu kuréel lañ ko waxee yaakaar na jàpp naa ni dafa bëgg PDS defal ko tribune ndax gis naa temps yële muy attaqué PDS PDS defu ko dara moom bu fekkente ni dafa nangu woon nekk marionnette makki Sall. Macky Sall def ko marionnette. Mhm. ba toute les salles besogne mu ko koy defal. Mhm. ba tey jii mu am ak moom problème. na dem régler problème yooyu ak Macky Sall ak benn bokk yaakaar. Mhm. wala moom ak APR. mais ñun parti démocratique sénégalais. ñu jox Mimi Touré une tribune de propagande. c'est pas possible. alors donc. Euh, dama jàpp ne rek euh, ce sont ses carottes internes c'est sa cusine interne moom ak Macky sàll ak vraiment waa benn bokk yaakaar wala APR. Mhm. que mu jógee fa mu bañ fa jóge mhm. man dama jàpp nii li ma jàpp. Mhm. li ma jàpp e te yàlla seen lool laa gëm. mooy Mimi Touré dafa fay. dafa fay jeeg bu fay la. ba fi muy mujjee jàpp naa ni ku ko fay li mu daal di dem. mais est-ce merewu leen ko aussi par rapport ak. Euh, non man ñu ko mere parce que nee naa la marionnette Macky Sall la woon. Mhm. ñu ko mere parce que nee na Macky Sall marionnette Macky Sall la woon. Mhm. ñun Macky Sall la ñu amal affaire. moo tax Macky Sall la ñuy waxanteel. Macky Sall la ñuy waxanteel. mais pour réconforter votre majorité au niveau de l'Assemblée peut-être mën ngeen collaborer. non non non mais écoutez une par rapport à notre à notre que vaut une voix moom moom bàyyi ko foofu rek. Mhm. li ma wax nee naa la jeeg bu fay la. dafa bëgg ku ko fay li te moom sax wax na ni waa ji fayle woon nag ñëw na waaye d'accord gul woon ci li mu ko fayle moo ko wax maa ko dégg man maa ko dégg maa ko liir ak ah, kon nag ci euh, daal bay leen ko noonu rek man je pense daal affaire am daal ba tey des naa leer daal. ñu ngi lay jaajëfal ñu bàyyi la nga tàggatoo. maa ngi lay gërëm bu baax di leen sant di kontaan trop ci émission bi di yaakaar ni waxtaan wi gàtt na waaye am na solo ndax leer rek lañ si doon jublu euh, jàpp naa ni les citoyens sénégalais de façon générale dinañ am contentement ci gannaaw bi ñu dégloo interview bi di wax ne rek réew mi nen ñaan yàlla suñu borom yàlla may ñu jàmm ñëpp bokk ndey bokk baay euh, ñaanu waajur yi ak kilifa diine yi dina ñu jàppale waaye également di wax Macky Sall ci boppam na génne boppam na génne ci boppam mandaaw troisième candidature wax jooju loolu na ko taxañ sani géej kilifa yëpp wax nañ ko ko kilifa yëpp wax nañ ko dégg koo yaakaar ak koo yaakaar nu wax na ko te itam moom moo ko jëkkoon wax démb ak bëri dem kon maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant jërëjëf. ñu ngi lay jaay merci merci.